waaye ba ci dans les affaires de Bougane ci business am gisoon nañ ko mu am ci taxawaay boo xamante ni bu remarquable la woon léegi rek bi may ñëw laay am ku may waxtaanal mu ne ma man nag sama contact la woon foofu waaye mu ne ma c'était une très belle am waaw ma c'était une très belle âme c'était une très personne kon loolu wax dëgg yàlla euh, bu ñu ko gisee euh, dégg ko ci moom li ñuy sunu xel dafay dal su sunu njort dafay rafet bu jógee ci borom këram ak ñi nga xamante ni ñoo doon jëflante ak moom diko jaale nag way juróom yëpp ndax kër yu mag a mag la sunu borom dogal mu bokk fa muy côté way juram wu jigéen muy côté way juram wu góor di ko jaale it euh, turandoom muy soxna moomi bi nga xamante ni ñëpp dégg nañ euh, Thione Seck yàlla na ko suñu borom dolli yërmande ak leer doon wax ne soxna moomi moom ma yóbbu ci sëñ Abdul Xaadir waaw mu mu jébbalu kon soxna moomi boobu it ñoo ngi koy jaale turandoom di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu dolli ko yërmande dolli ko leer dolli ko taxaw waaw di ñaanal mbugaan sunu xarit la euh, ni ma koy waxee léegi rek li ma xam ci moom it lay seede nit ku baax la nit ku jàmbaare la man bi may nekk journaliste comme bi may nekk ni tey homme politique mm-hmm. amul benn jamono boo xamante ni nekkuma dans des situations difficile wala ay circonstances difficile mm-hmm. lu dul jot naa appel